لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا la la la la la la la la la la la la demal jàngi sadaraja demal jàngi sadaraja demal jàngi sadaraja dabbax malik am daraja yiw yi fi ne ñeel na la ndaw fii ku fi ñëw yokk ba demal jàngi ca daraja dabbax malik am daraja yiw yi ne ñeel na la ndaw fii ku fi ñëw yokk ba ngi tey di ko jublu wax yàlla na ëllëg day ramb téere bi lañ bëgga wattu moo tax ñoo ngi tey ko jublu wax yàlla be jara fonku dégg na ëllëg day ramb demal jàngi sa daraja dabbax malik am daraja yiw yi fi ne ñeel na la ndaw fii ku fi ñëw day yokku ba faw xarfu boo ci jàng ashru ñu fay la xarfu boo ci jàng ashru ñu fay la yow mi ko wat wattu sangu nga lu per la yay ramb ëllëg waajur ya yàlla la jël yow waayoo la xarfu boo ci jàng ashku ñu fay la yow mi ko wattu sangu nga lu per la yay ramb ëllëg waajur ya yàlla la jël yow waayoo la demal jàngi sa daara ja aywa demal jàngi sa daara ja dabbax malik am daraja yiw yi fi ne ñeel na la ndaw fii ku fi ñëw way yokku ba faw suma koy jàng xoy bi suma koy jàng xol bi di fee Qur'an li mu saf moo dàq neex ñëw leen wit yiw ya du jeex fu ma gis noonam song ko xeex summa koy jàng xol bi di fee quraan li mu saf moo neex ñëw leen wit yow du jeex fu ma noonam songu ko xeex demal jàngi ca daara ja demal jàngi ca daara dabbax malik am daraja yiw yi fi ne

téere bi lañ téere moo tax ñoo ngi tey di ko jublu wax yàlla be dégg naa ëllëg day ramb téere bi lañ moo tax ñoo ngi ko jublu waxiyat la be fonku dégg na ëllëg day romb demal jàngi daraja demal jàngi daraja dabbax malik am daraja yiw yi fi ne ñeel fi ñëw yokk demal jàngi daraja dabbax malik am daraja yiw yi fi la ndaw fi ku fi ñëw yokk ba fa di ko jublu wax yàlla be dégg naa ëllëg day rambo tere bi lañ moo tax ñoo ngi ko jublu wax yàlla be jara fonko dégg naa ëllëg day demal jàngi sa daraja dabbax malik am daraja yiw yi fi ne fii ku fi ñëw day yokku ba faw xarfu boo ci jàng ashru ñu fay la xarfu boo ci jàng ashru ñu fay la yow mi ko wattu sangu nga lu per la yaay ramb ëllëg waajur yaa yàlla la jël yow waayoo la xarfu boo ci jàng ashru ñu fay la yow mi ko wattu wattu sang galu sëñ daara moom nelawul sëñ daara noppaluwul sëñ daara moom fayuwul àqam si biir daara sëñ daara moom nelawul sëñ daara noppaluwul biir daara sëñ daara xel ma dal ba far nelaw ya doyul dongam ya ñoo koy teel maa bëgg sëñ daara sëñ daara xel ma dalul ba far nelaw ya doyul dongam ya ñoo koy teel maa bëgg sëñ daara kili defar sama xel defar na it sama xol moo tàggatit sama ruu eskey sëriñ daara jàngal ma man ma ne ar mu yeewa it ma ne jar ku yella moo léyewi jaajëf sëriñ daara li taxit sama ruu taxit sama xol naqar wi man di ma rey ci xas sëriñ daara li lee taxit sama xol naqar wi man di ma rey ci xas sëriñ daara sëñ daara yàlla na wér sëñ daara yàlla na yor sëñ daara bul masa mer yaag yàlla laag daara sëñ daara yàlla na wér sëñ daara yàlla na yor sëñ daara bul masa mer yaag yàlla laag daara jullil ci ngeen di yónneen ma jiite waa daara ak saaba yaag ñoña ñaan jàmmi waa daara jullil ci ngeen di yónneen ma waa daara ak saaba yaag ñooña ñaan waa daara sadaqallaahu al-aziim ba ba nekk ci biir bàmmeel dongo yi nekk ci biir mbaar mi di jàng alxuraan fekk yow sa ciment dem na ci biir mbaar mi sa boobu réerul wallahi sa dërëm boobu réerul dërëm boo dugal ci mbaarum alxuraan ay doo nekk ci biir di jàng alxuraan nga nekk ci biir bàmmeel ak leer lay doon ak leer ba ba nekk ci biir bàmmeel dong yi nekk ci biir mbaar mi di jàng alxuraan fekk yow sa ciment dem na ci biir mbaar mi sa sa sa dërëm boobu réerul